li nga xam ne ni moom moo tax réellement ñuy alerter parce que bëgguñu li am ci yeneen hôpital yi am fii pareillement gis nañ ni Linguère am na lu fa amoon ci bébé yooyu lakkoon mu amaat Tivaouane à chaque fois ñun tamit suñu courant bi mi ngi am problème soit nga gis mu lakk soit nga gis mu buurle te lu ci bëri guddi lay am ñuy alerter l'opinion di alerte les autorités yi nga xam ne nii ñoo nekk Mbàkke di leen wan ne li am ñoo ngi leen di alerter ndaxte bëgguñu li am ci yeneen dëkk yi am fii fii amul service de maintenance service de maintenance ci hôpital yu mag yi la am mais courant bi chaque fois mënul toog deux jours à trois jours yoo xam ne amul problème tey soo gis sa soo soo demee ci biir yaa ngi gis fiil yu ñu taqale même bu hôpital mënul régler coût bi tey toutes les autorités u courant à travers le maire ñun SUTSAS demoon nañ fa alerté nañ ko ba korog li teew li am teewoon amee lan ko alerté dem nañ ci rajo yi alerté képp kuy autorité alerté nañ la ci loolu parce que bëggunu dara am ñu ne agent de santé yi la ñuy tëj alors que ne agent de santé yoonam nekkul ci courant bëgguñu loolu dal monsieur le maire ñi ko mën autorité yi nga xam ne ñi ñoo ngi seetaan parce que ay doomi Mbàkke ñoo fi fajo kon warunoo seetaan autorité yi warunoo seetaan ba jiyee am kenn ku nekk naan waxoon naa ko ñun nag prévenir lañ parce que ci système bi la ñu bokk prévenir nañ autorité yi jox nañ un lettre le préfet toog nañ ak ak ak le maire décrier affaire boobu notre grande surprise gis nañu ñu jékki-jékki gestionnaire ba dëkk fa te gestionnaire du waruñu ko loger maîtresse sa chambre ma fu war a dëkk moom lañ ko war a jox bu fa dëkkul amul ku nu ko war a jox du gestionnaire lañ ko war a jox gestionnaire kenn waru koo loger kenn waru koo loolu nag ñoo ngi koy naqarlu ñoo ngi koy naqarful parce que doo gisee suñu maîtresse sage-femme bi dafa dem sax luye pareillement jóge na Touba am na kër gu ñu ko luye fii à Mbacké moom moo koy fay pour le moment. ne logement fii ci biir structure bi xaw ma nag nu mu fa demee doon ko ko war a jox maternité bi tamit dañuy interpeller tamit les autorités parce que Mbacké na mérite pas ça Mbacké mérite un coût de quatre-vingt-douze millions ñu jëlaat zeng ya fa nekkoon delloo ko fa bunt ya fa nekkoon ñu jël ko delloo ko fa Mbacké ne mérite pas ça Mbacké mérite mieux man sama sama sama sama ambition mooy Mbacké am hôpital de niveau un sama ambition mooy Mbacké nekk dans de bonnes condition nekk dans le confort suñu ñu suñu suñu yaay yi suñu sœurs su ñu ñëwee di am doom ñu nekk dans de bonnes condition loolu dong la service yu bëri léegi am na fi ay boo demee ci cardiologue bi am na ñoo ngi ñëw par rendez nga ñëw ci jabet bi am na HTA am na lépp lu jëm ci wàllum wàllum euh, kii rek am loo xam ne ni amuñu fa woon ci spécialiste léegi am na ci Mbàkke moom waa moom macha allah mun nañu ñëw lépp loo xam ne nii jaaxal na la médecin yi ñëw te affecté nañu ñett médecin ñoo ngi alerté par rapport lu jëm ci courant bi par rapport lu jëm ñoo ngi alerté par rapport lu jëm ci courant bi ñoo ngi alerté par rapport lu jëm ci di ñu mën a woo déglu entrepreneur ak la l'ancien maire bi nga xam ne nii ñoom ñoo doon euh, defar maternité ba te delloo ci zinc ya delloo ci buntu ya rajo bi bâtiment bi taxaw na bâtiment yu kese moo taxaw ci rajo bi ah ba léegi amul suivi gisuñu dara bâtiment bi rek moom moo taxaw waa ji doon tabax entrepreneur bàyyi na fi ay bagage dem na Mbàkke saa yu ñu amee ku bëgg a def rajo dañuy dem ba mat bul Matlaboul ni pour mu def fa rajo alors que c'est pas normal. instant yi ñu toll nii moom li nga xam ne mooy parc automobile bi euh, ak euh, chef de parc Alaaji Fall liñ ci man ci taxawu ñu ngi koy def. dont que lépp matul cent pour cent mais mais ñi ngi jéem a def quand lu baax ñi ngi jéem a réparer oto yi au temps di jéem a satisfaire besoin oto yi daal loolu moom liñ si man ñi ngi koy def boobu defar nañ ko dèjà boo xooloon moo nekk suñ ginnaaw soit dafa nekk fi koy raxasee mais romb nañ ko léegi mi ngi daw mm-hmm. instant am na ñaari ambulance mais doyul Mbàkke wu dafa war a dépassé yooyu ay benn ambulance ñaari ambulance benn particulier mais Mbàkke toolatul foofu Mbàkke li may wax sama rêve la sa rêve la keneen ak keneen la ñun Sexas newuñ fi comme si suñu bopp dañ fay nekk pour waa Mbacke Mbacke dafa war a am hôpital niveau man à chaque fois bu may wax xam nga kan laa interpellé directement mooy monsieur le maire ah monsieur le maire dafa war a xam ne Mbacke fol dañ koo fal ci contexte boo xam ne bu raaw lañ ko fal tey li ñuy xaar si moom dëgg la politicien la hmm? mais nag il faut mu arrêté yenn politique yi tey tey jëf. parce que bërki démb bu maye naay oto maye oto vidange maye ay poubelle loolu lu baax la mais li ñu gis ne euh, public bi mu dajale fële yëpp def def fa ay financement yooyu ñëwoon ci courant bi moo gën ci waa dëkk bi moo gën a ñor am na mbedd yu taa loolu ci kuñ ciy xaar ku moom ah hôpital niveau 1 bu ñu koy wax moom moom moom c'est mooy ki nga xam ne moom moo si war a jiit dugal ci loxoom ñun nii ñuy defee fu nu amee occasion di ko fa jooy moom noonu la ko waroon a porter mu nekk combat nga xam ne tey fu mu dem ci àdduna lu mu fay njëkk a wax mooy damaa bëgg a def Mbàkke mu ne nekk dëkku référence comme niñ doon tuddee Aly Ngouille Ndiaye di tudd Linguère noonu la war a def mbaake mais pas ñuy def maire yoo xam ne nii buñ leen falee dañ fiy nekk nekk fi ba jógee fi duñ fi gis suñ bopp ci yooyu parce que ñun bi ñu koy fal am yaakaar ci moom ak bëgg mu liggéey dëkk bi moo tax man li may xaar ci moom mooy tëli dëkk bi li may xaar ci moom mooy paawaas dëkk bi li may xaar ci moom mooy mu relever plateau technique hôpitalu Mbàkke bi def ko hôpital niveau man pour le moment loolu laa gën a gis ne moom moo gën a nekk liggéeyam politique naam dëgg la mais nag boo jëfee li ngay jëf bu leeree ci bopp nit ñi moo gën a gaaw sax ka ngay wër di politique politique. parce que moom bi ñu koy fal am na ay politiciens yu fi nekkoon dàq ko riiral mais am yaakaar ci moom moo tax ñu ñu ñu fal ko ñun succès dem nañ seeti ko këram wax ko ne ko li xew li xew Linguère euh, xew Tiwaawoon mais mën naa xew fi parce que dañoo am problème mu courant te du ñu bàyyi succès am ay militants. muy ay infirmier ay sage-femme ay brancardier am ambulance am maintenance am ñëpp danoo bokk si ñun te suñu seetaanee tey en général su tàkk amee wala maas am ñooñu rek la ñuy jàpp ci kaso bi tëj mais duñ tëj keneen mais loolu nag balaa am seen dëkk dinañ wax képp koo xamante ne bi mën nga dara ci dëkk bi am nañ yaakaar ci dëkk bi mais nga ñëw wax jàpp si pour dëkk bi bañ a dund situation yooyu noonu